fëgala benn yoon la bëre arène nationale ñoom moom it dafa ñàkk. Hmm. armée mu ngi bëre caatu booy bara armée moom nga mujjee bëreel. waaw. fëgala yaa ngi mujjee bëre double moteur. waaw. yéen ñaar ñëpp ku ci nekk sa combat dafa ñàkk te yéen ñaar ku ci nekk bu daanoo dina tegle ñaari defet armée mus nga am ñaari defet yoo tegle. yàlla tere yàlla bu ma am sama àdduna. Euh, fëgala mus ngaa tegle ñaari defet. ñaari defet la dëgg waaw waaw tegale naa ñaari defet parce que dama jóge ci Ama Balde dama joge ci Ama Balde jël Garga Mbossé mais nag jili ma wax la dara hmm. mbër dëgg mbër mbër mbër ndaanaan ndaanaan dëgg balaa ñu koo xam aha ñu ne tey mu génn làmb ji dëgg la wala déggoo ma <laughs> ay ci loolu am kay am na am na ñoo xamante ne nii ñaari defet moo leen génnee moo leen non non dama koy li ma koy wax nii xamal tax mënagu koo xam. Uh-huh. at yi ma def ci làmb defagu ko da di gone xam nga gone moom. dëgg la gone boo nee gone loo ko wax lu dul suba la tëbëg si du gëm. déedéet. gone loo ko wax lu dul suba la tëbëg si muy xalaat ñaani ndéwénal. Uh-huh. du ko gëm mais dama ne la ndaanaan yëpp xam nga fan lañ leen di xamee. Hmm. si tey ñu génn làmb ji man li ma dékku. li ma dékku ba tey ñu tudd fëgg la moom bu ko dékku woon génn na làmb ji bu ah. non bokkuñu am na defet yoo xam ne boo koy jëlee. Ah. ci ak dynamique ak façon bi ñu ko jëlee. Hmm. cinq ans ci ginnaaw ba tey chaque année di nga bëre. Hmm. ci boobu laa gëj a tegale ñaari defet de boobu laa gëj a tegale ñaari defet yi ci des. mooy dama daaw dama dama daan jokkeel double moteur daan ma daaw. waaw. yaa ngi dégg gëj naa tegale ñaari defet quoi mais. ma man am solo. looloo ngeer bëgg bi la ngeer di daan tegale woo ñaari defet. oui. bi ma ngeer daan oh. waxal ku daan. wax ko. bëgg la. non da ngay wax naan bala ngeen non da may wax dëgg may déglu waxal. non waxal ñu avancé. ay ay balaa xam ndaanaa génn laa ma bu boobaa lay génne. bu non yow yow ak ah, xola bilaay damaa bëggul xool dama bëggul wax parce que combat bi comme ñëwagul ak yooyu xamale ma la dama ci bëggul sori mais su ma waxalee yàlla rek du ma tëdd ba xalaat ne yow mën nga maa daan mbaa mu yëngal ma du ma ko xalaat sax xamal tax du ma ko xalaat ah. amul lenn la loo amul lenn loo xam ne rek armée yor na ko lu ma mën a daan du xeex bi du bëri bi benn foor la am muy caxabal bi bu ma caxabalee dama koy dëbb naax fas ko su ma su caxabalee dama koy dëbb naax fas ko eto ko dafa may defal lu ma bëgg mi ngi mel ne ma bëgg ay ginaar rek nga tegal ma dibi. waaw dama ñëw rek nekk. <laughs> moom xam moom xam na lool. su caxabalee moom xam na bu caxabalee dama koy eto bu caxabalee dama koy eto. Uh-huh. ba waa benn baraag gis ko mu dóor ko suuf amul leneen lu may daane. wax ji sax bëgguma woon mu bëri mais yow jili mënu ma laa bañ armée mooy champion bi moo ëpp doole moo mën ba bés ba <laughs> bëgg na yow daa dogal ni ah yow ci mbër yi buñ doon nommé mbër yi dàq signature ci nga bokk waaw mais loolu vraiment <laughs> armé baal ma armé may ma tuddi fëgg day jaay combat fëgg la mën na bis non dama koy moom mi fi mu ne maa maa ngi maa ngi yokkaat kotam de eh jili maa koy moom damay yokkaat kotam bu paree moom mi bu paree daf ma daf maa war a sant gërëm parce que dama koy yéegal beneen lëfën parce que dinaa ko may promo boo xam ne dinaa ko may promo boo xam ne musu ko am ci làmbam dafa mbër yoo xamante ne ci làmb daa mbër yoo xamante ne ci làmb kilifa bu mag woona ma di ma ko wax lim ñeenti mbër ci làmb ji na leen mbër mu jël seen avance da nga leen war a sant gërëm leen waaw dina tax waaw dina tax àdduna bi yëpp bàyyi xel bés ba hmm. ndax dinañ jaay bés bi loolu promoteur yi soxla si dinañ ko jaay hmm. nee naa la am na sama génération ñun ak ñoom les deux ñun ak ñoom ñooy ay génération ñoom du les numéro deux kenn hmm. tey sama génération xoolal kan moo ciy bëre chaque année am na ñoo xam ne ay cinq ans bëriwuñ dëgg la man chaque année dinaa ci jël sama wërsëg kon li jara sant yàlla dafa bëri hmm. dañuy am problème mu man seetaan naa ci koo xamante ne ñoo bokk si nee na ma nee na day promoteur bu ko wax avance sax amul hmm, Serigne Sarr yi chaque année dañ may wax ay combat maay xool bi ma neex ma jël ko dëgg la su demee ba daaj ma ne lii moo fi ne damay joob temps du la xaar ma jël. mais moom hmm. bu paree ci moom dama koy mayaat beneen coow armée beneen coow laa koy mayaat loolu dafa moo ko war a sante maay doyen ci làmb. armée kon fëgala moo la may coow li nga def ci làmb yëpp. non maa eh coow bi maa koy yokk nag maa yokk coow bi. ah. maa yokk coow bi. <laughs> ndeysaan xoolal ba sëñ Bas. mbokk yi ngeen may ñu tuuti fëgala. may leen hmm. ñu seetaan combat bi a ñëw armée no mi ngi arrière day laaw sax baaxul moom. <laughs> foog nga yaa may commentéeral combat bi ñu kan la dafa booy bambara ak armée non non combat bi non da non sàcc nga combat bi arrière bi nañ lew too arrière combat bi nee na da nga sàcc arrière ñu bi. <laughs> ah arbitre sifflé arbitre sifflé na arbitre loolu booy bambara ngemb lu weex ak armée ah. waaw moo féetee nan. moo féete gauche Tapha Boy Bambara moo féete droite. waaw. non Armé sax ndaxate pied moom pied droite lay teg. kii pour mu duma ko day ah. yomb sax. <laughs> ah. yii pour mu duma ko day yomb. yooru daw na yooru bàyyiwaat. dafa gaaw ci ah, yooru na tànk ba. bàyyiwaat. ah. génne ko génne ko foofu. balaa mu yuuxu fii. ah. Armé waaw. ñooy xeex. Feugueleu dëbb na ko naax jàppante nañ quoi roofoo nañ. Ah. sëq na ci geño gi armé sol na ko. Hmm. rocci na loxoom génnee ci biti kor ko. Hmm. ña ngay xeex ña ngay xeex. ñu hmm. ngi dóorante ñu ngi jàppante di xeex. non li may wax gi armée génn na saako yi waaw mais nu mu demee nii armée génn na saako yi c'est mu génn saako yi nag armée génn na saako yi day defar sangoor yi ñëwaat nañ ah ñëwaat nañ ayca ñu ngi léewtoo dafa booy bambara armée bu benn baraak hmm. armée yaay seetaan combat bi bu baax moom laay déglu rek ñu ngi léewtoo uh-huh. armée dem na jàppante nañ bàyyi na xeex nañ ci kaw xeex na armé nee na coppet tànk bi. jël na ko Bambara rëcc takk na ko Tapha Boy Bambara armé takk na ko Tapha Boy Bambara mi bañ. Tapha Bambara mi ngi bañ mhm. armé sol na ko Tapha Boy Bambara sukk na armé caxabal na ko benn benn melo bi benn melo bi. ah bii caxabal armé dal na Bambara oh avenir la xale la. waaw macha allah. Eh, jërëjëf félicitation. mais Bas Armé. Armé dama laa bëgg xamal leen na. Eh, mbokk yi ñu ngi fi ñu ngi fii ci wasaare làmb waaye Armé man maa ngi parcelle. yow yaa ngi fan. New Jersey. Amérique. sa waay ñu ngi benn baraak. yow fëgg fan. maa ngi New Jersey dëkku photocopie. agent est xam nga ni kii. ki yor rési bi fi mu toll nii ba nga mariste buy sëñ Basiru borom beeg beeg taar bi. ndeysaan waaw mais liggéey bi am na solo de liggéey bi am na solo. Hmm. am na solo trop. rafet na macha allah. armé. naa noonu baax na de. baax na armé waaw. xam nga combat bi rek dafa am lu mu wanewaat. waaw leneen. Hmm. bambara ñëpp a xam ne dafa ës mm-hmm. ës la ko wane diggante ma Papa Sow xam ni ës la fa wane ak mën xeex làmbaar dëgg la gis nga xam nga ni moom rek laa mos a yóbbu ardo dafa booy bambara moomu ci sa combat yëpp sama combat yëpp moom rek laa mës a yóbbu ardo dëgg la te dañu woon daf may teg lu ko nit mënul teg hmm. Serigne Saliou moo xot la ko ci kanam ci kaw ñaanuma yàlla dóor nit si làmb mu daanu damay ñaan yàlla chaque jour yàlla yàlla bu ma ko dóor nit mu daanu man naturellement ñu bëri dañ may ci kàddu boobu mais hmm. képp ku jóg ku naa la wan jariñu lu dul fayu jege wu ma sax la rek xeexoon ak yow non eh jiili jiili jiili jiili nag gis nga jiili jiili jiili bàyyi sa yi ngay def jiili jiili xam problème bi mooy dafa am benn erreur bu ci am mooy jiili lamb ji li muy re rëy loxo yëpp bokkuñu am na loxo yoo xam ne mën nañ la dal quatre-vingts fois doo naaj doo ah. daanu mais am na loxo yoo xam ne bu la dalee non ñibbi mm. ngay tal ñibbi mais maa lay jox benn exemple fëgg la da ngay bëre mbër mu mag boo xamante ne champion la ci lamb ci ci ci ñeent mbër yi mag yi nga xamante ni fi mu toll ni bokk nañ ci téye làmb bëre naa ak yow ba pare ma ne ko sa combat yaak fëga la damaa jékki-jékki gis fëga la bi mu lay song yëgoo ko mu ne ma fëga la loxo bi laa doon daw loxo bi laa daw nee na moo tax fëga bi may bi muy daw di ñëw yëguma ko loxo bi lan moo tax nit ñi di ko daw lan la non jili jili gis nga dama la mm-hmm. man sama sañoon làmb du ma ci dóor kenn mm-hmm. su ma sañoon su ma sañoon. résumé résumé ñu bay indil combat fëgg la. <laughs> Jokal waaw ah, Jokal yi la doon wax. te Jokal xoola. Armé non mais commenté bi fëgg la. bi waaw ci diggante fëgg la. ah. a ngi ngembo ngembo bu. ah. dox latéralement. doorul songul. ñu ngi ñu ngi ñoom ñaar. ñoom ñaar jokkale xaar ku. su ko defee koy kii la nekk. kii déglu na ko déglu na ko bi. waaw si gi xool ko. tànk latéral. jiital tànk droite. jokkeel jiital tànk droite. jokkeel nag expérience. passe la jeunesse. ndeysaan. allo mooy commentaire combat bi. takkusaan lu rëy fële ca stade Iba Mar. stade Jomb ndeysaan. lamb namb na lii. mais seen stade na de ana seen i mbër seen i mbër. Eh, armé commentaire la bu fi sànni xeer kenn. latéralement. door amul songul amul. ali lan la nii mhm. góor la góor na Jokal yokk na dugal benn ku fëgale dóor na benn ku perdi Jokal benn mhm. non foofu perdi amu fa direct foofu foofu perdi amu fa Armé Armé Armé booy commentaire combat bi da ngay da ngay kii rek coup bi dal la. non ko rek ku perdu la bàyyil ba ko rek. bu ko dalee dina ko amal ku perdu la bas bas taxawal foofu foofu baax la bas téye ko foofu. la. waaw fëgg la dafa door na déplacé. Ah. force. waaw bu dee jël tamit. waaw bu dee jël na ku kon jël na ku jokkal mel luy hmm. daw di jël fëgala hmm. daw na bal na ko hmm. bal na ko ñu xool nu muy def bal na ko bal na ko takk na ko tegal pot séeréer pot séeréer li li mooy pot séeréer la séeréer non non moom moom nag bu xamul bu xamul code lu xamul tu lool nu mu tudd dama laaj ma wax ko wax ko fëgala loolu tudd ma xamul nu mu tudd na ma laaj ma waxoon ko bëre ne ah Kottu eh, séeréer nga ko déglu ah garaaw léegi Kottu séeréer. armé léegi mayal fëgg la mu wax ci combat boobu. bu defee xam naa ni li am ci waxtu jot na. ñu ñu ñu mën a tàggatoo armé may ko fëgg la commentaire ci combat bi ni nga ko bëree sa diggante ak Jokal. waaw mais xam nga des fois taxaw bi mënul ñàkk gis nga dox latéral boobu yenn mbëri di wax. am na ñoo hmm. xam ne dañuy dañuy ñëw sonn ci yow leen la yow fëgg la taxawal. waaw fëgg la làmb ñaara koy def taxawal fëgg la taxawal làmb ñaara koy def moo tax des fois il faut ñëw taxaw dox tuuti fo sigi dox latéral ba sa bëre bi ne sa xel nga bëre. dëgg mais man su ma sañoon ba di ne pare damay taxaw boo xoolee sama combat ndaw ni ma doon bëree. ak mm-hmm. léegi du benn sama combat ndaw bu ne pare damay taxaw dox sa kaw fëkk la dóor ci suuf. Mm-hmm. wala ñu contact bëre mais lamb loo ci gën a yàgg am na loo xam ne yaa ko moom am loo xam ne say nit ñoo ko moom. dëgg la. noonu la demee mais leneen li ci des moom. Mm-hmm. ay daan jokkel nee la yooyu du ma ci zibilé ay daan armée yi du ma ci zibilé. non non ay daan armée yi ay daan du ma ci zibile parce que xam lan moo hmm. man leer na ma leer yàlla ni li ne ci man kaar bi newul ci ñoom hmm. te mi ngi café benn affaire bugguma dóor kenn mais buñ ma dóoree ma hmm. fay bu mu ñaan yàlla mukk ma dóor ko bu ma ko dóoree du tal fayu waaw ko bëgg a wax non loolu moo am sax xam nga lan laa da moom mbër la dama ko bëgg dama ko yee dama ko jox dama koy jox benn xam nga ñoom ñëpp suñuy rakk lañ lamb bu defarul warul yàq. déedéet mais dafa am esprit bi mu yor damay seetaan ay émission man da lamb ji ñëpp ku ma ku ma romb ku def wasaare rek dama lay seetaan ku def beneen si dama lay seetaan sa lamb laay mm-hmm. dund. Mm-hmm. mais jéemu ma dóor kenn mais ku ma dóor ma fayu am na ñoo xam ne buñ loo dóoree. doo tal fayu mm-hmm. non doo ko tal. dëgg la loolu maa koy jox quoi entre booy. ak grand frère am maa koy jox loolu pour mu def ko ci xelam. am na mbër mu doon wax du dóore bi la sa grand bi na am na benn mbër bu waxoon du dóore suñu écurie la nekk. Hmm. mais am na fi benn combat stade Jomba. maa ko doon may ndox pour mu sëlmu pour moom bëtam bi desul ci desul des ci stade bala des. <laughs> pour moom gisatul. pour moom gisatul doon jaay. moo dóoree mu naan ma fëgal la da nga soxor nii ba kër mais am na benn combat bu am xaw naa de. ndeysaan. waaw mais nag bëggee nañ la kontaan ci émission bi xam nga. armé ñëwal après fëgg la xaaral ñu ñëw après nga tàggoo armé ñëwal. ok. ay conseils yi nga utiliser ko man soxla ma sa man boo damay fen te man du fen man nit munul am màqamay ma fenal la. waa léegi combat xaaral ma dóor la combat bi xaaral ma dóor la nga doo ko fayu dégg man man man. man maa xaar yow nga ma. bis bu bis boo ko xaaree. bu la quatre vitesses yi dalee. man yow yow bu la fonde laa la. non yow mënoo amee mënoo xeex da nga af mënoo xeex na nga af mënoo xeex. bul xeex ñëwal bëri si rek ñëwal bëri si nga def caxabal bi loola yàlla may nga ñibbi. man caxabal moo laa mujjee daanee mbër ko combat laa def est que yaa ngi mm-hmm. samay combat non non euh, man mel dafa ragal caxabal bi non dafa naan jiili non parce que damaa bëgg non damaa bëgg nga caxabal ma damaa bëgg nga caxabal ma parce que boo ma caxabalee da may jege boo ñëwee pour caxabal ma dama lay jege pour mën laa naax dóor la séeréel bi mm-hmm. déglu bëgg a yow da nga ragal caxabal bi yoo dama lay. non non ndax parce que ñaari wax tudd. man loolu laa gën a tële ci caxabal bi dama bëgg nga des ko moo tax. na jege micro bi na bi. armé armé jégal micro bi armé bi tuuti li nga wax da nga koy dese dégg. man. yaa laa commencé daan mbër ci caxabal mu dégg pour mu bàyyi ko xel Mm-hmm. combat Boy Niang Dolf bi Boy Niang caxabalee Dolf ma dem entraînement ci laa commencé caxabal man noonu laay bëree man damay mooy stade mooy stade Iba Mar bu mag ba waaw man damay xool nit def dara ma loolu mën ci bëre mm-hmm. moom dafa jël xelam bi yëpp def ko ci kii daf may jaxal daf may jaxal non def moo ko non non jil def billaay wallaay barki bis bu ma amee xam naa wala xam naa seen xol yéen ñaar ñëpp armée xam naa sa xol xam naa xolu fëgg la yéen ñaar ñëpp ay borom baax ngeen euh, tàggool nag xam naa li ñu ñuy signalé liñ am ci waxtu jot na ma nga tàggoo nuyu mbokk yi baalu àq ñi nga war a baalu àq su ko defee ma ñëw ci fëgg la ñu yeewee ko ba ëllëg comme ñu koy waxee rek. baalu àq ñëpp comme weeru ko. yàlla dogal fukki fan yu njëkk yi yi yërmande. yërmande yàlla. ate oustaz. damaa <laughs> man man. man du làmb moo tax may giré man maa waxal waxal bu bu bu déglu mu gën a da lay giré waxal. yàlla na yërmande yàlla képp suñu kaw ñun jaamu yàlla amin ak ay mbokk xeeti feebar yi fi dugg yëpp mm. yàlla na ko sax am ko yàlla defal amin baal ak yëpp surtout suma fam si coono bi ñuy daj arba armée yi euh, jiili am na ñu jàppale nag yàlla chaque semaine. non loolu ci biir bi la. man samay fan si. ma leen sant bu def di di di ubbi compte Orange bi jàppale armée bi yëkkati alal di def. dëgg la ngay sant dëgg la nga xam ngay sant ak na amul boyo ginnaaw muy xam ne kii bëgg na li muy def dëgg la liggéey di ma di def ngir man yàlla na leen yàlla foog nga la dëgg la am waaw bismillah dina woni yàlla waxaat jërëjëf si Touba jaajëf merci ah wax du ma ma sant samay nit yow Serigne si Serigne si nee ko mu sant Serigne santal si Serigne si waaw maa ngi maa ngi koy sant ma xam naa ci <laughs> moo la xam naa ne moo la bu ñuy pare pare nga ma paree du ma. yàlla bu yaakaar ne baajee ko jaay sax. Ibou Dieng. Ibou Dieng. non bokkuñu bokkuñu sëriñ de. bokkuñu sëriñ de. Ah. Ah. non dal na ci dal na ci benn waay dal na ci benn waay rek benn waay boo xamante ni xamante woon nañ rek man moom daan na la ñaanal sa combat wala ñaanal Ibou Dieng non daan na am na ku ma doon am na ku ma doon ñaanal ku mu bokkal benn kër ma ko doon fekk ci kooku ñu dem ba xaritoo di demalante après mu jógee lan saa bokk après gëj nañ ñoo gisee nag ay at ak ñu gisante xam naa nag moo nekk combat bi moo nekk combat bi su ma ko teg leer na fëgal ak dama yàgg ma sëriñ si moom mosu ñoo seet na la baaxul dem dem non baax na jëlal kenn du la ci wax baaxul keroog da nga ni benn waa ji xamul dara yow yaa am loolu yaa ko waxoo boo waxul rek ñu dem man lépp lu may wax ma koy wax ndax lépp loo xam ne di nga ko harcelé. woo naa ko téléphone sax sax yow yaa ngi woo naa ko téléphone sax déglu moom. woo naa ko téléphone ne ko dafa am soxla wala ma téléphone. man jubbeewu ma loolu yow li nga waxoon waxtaan. yow yaa ngi baaji benn waay bi nga xam ne xamul dara sama su sëriñ la woon. yow yaa yow yow baaji ngay wax sax xanaa nga wax pour man ibu jéeju ngay wax te ibu jéeju ba ma ko woowee ba ma woowee ibu jéeju ba ma woowee ibu jéeju nee na ma xam Ousmane Sonko mu nekk armée Badji mi ngay wax sax xaw ma Ibou Diédhiou mi ngay wax ba ma ko woowee Ibrahima Ibou Diédhiou Ibou Diédhiou mi ngay wax waaw nañ avancé loolu aussi nañ avancé tànta tool ñu avancé foo xam demal man fu ma xam armée tànta tool gudd la gudd la armée guddi la il est deux heures man man sama téléphone sax guddi na dina ne vingt et un pour cent moo des waaw moo tax balaa laa fay quoi mais loolu laa naan man daa d'accord garaawul mais bëgg li nga waxoon kon nag di dellu ginnaaw. waaw non non dama ne la ki nga ki nga ki nga wax ki nga wax yow ma yaakaar xam naa ko ki nga ki nga wax noonu bu dee si sëriñ la mu lay ñaanal bu dee si sëriñ la mu lay ñaanal ne bu fëgal nga dara deuxièmement deuxièmement Ibou Diédhiou ni ma xam Ibou Diédhiou ma xam nee na ñaanal sax ku tudd armée waaye léegi fëgg la yooyu yëpp taat muy gën a dem non ji xool lamb ji dafa bëgg a wër ci sëriñ te fëgg la moo bëre Ama Baldé jàpp ci gàllaay fëgg laa bëre ku ne yaa ngi dégg oh, oh téléphone ba fit eh jili eh, léegi balaa maa génn tàggoo bëgg naa ñëpp sant bëgg naa ñëpp sant mm. képp ku bëggee fële bi lay ziar di la ñaanal di bëggee mafia mbër bi ñëpp mm. lamsaar Tiwaawan ñu ngi leen di bëggee ñëpp association bees bi taxawal ànd defar sunu gox ñu bëggee ñëpp di bëggee sama président dëgg la di bëggee ñëpp di sant suma gaay képp ki bëggee fële bi ñu koy sant bu baax a baax di mm. bëggee ñu jël gi ma nekk suma gaay booba faaf suma doomu nday maa ngi bëggee gaay yëpp yaa sagal père bijël papam yaayam ñëpp père Assane ñu ngi bëggee ñëpp di bëggee képp ku dëkk Touba ñu ngi lay jógee di la ñaanal sëriñ bi yàgg fi la wér ku tedd bi mu dund ba waaw yaa ma gën a xam amiin amiin amiin jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou wax na yàlla la kenn du yàlla suñu borom noo gisee wasaare la wasaare wasaare mooy bokk yow xam nga fu ne ngay génn waa wasaare fu ne la ñuy génn man bokk tey maa ngi toog ma woowee sax man waxtaan bu ndaw la far nga dugal ci booy bi nga xamante ne day day ko ko rek bu baax noo gisee émission bi vraiment émission bi neex na innovation la ñuy ñaanal rek encore une fois comme ko waxee wasaare làmb dem ba dem télé te xam mm. naa loolu suñu la mm. te gis nañ gis nañ ay ay jeunes ci nekk te ñu gëm li ñuy def lañ ñoo xam mm. chaque jour ñu ngi xam nga di def yeneen ñu nga xam ne lii lii lii aar la ak ma ñu di seetaan di def émission benn caméra fii ci téléphone. mën mm-hmm. innovation la. dëgg la yàlla na seen jàmm dañ leen di ñaanal yàlla na seen jàmm yàgg yàlla na leen yàlla jubóog seen DG aussi. amiin amiin amiin mébét bu ngeen bu ngeen bu ngeen bu ngeen amoon rek yàlla eggal ci barke Seydina Mohamed. weeru koor gi. amiin amiin waaw vraiment. bu baax a baax baa jiiri yow borom baax la taalibe nga. dañoo bokk mm-hmm. ki ñu muy Serigne Saliou. billahi man Serigne Saliou. dëgg la. muy sama wasila aussi. kon dañoo bokk luñ mënta séddoo. dëgg la sama adresse. waaw ci la ci biir moom tamit aussi. ci la bokk moom taalibe la <laughs> comme ni ma koy waxee ñaanal bépp doomu Sénégal ak sax ku nekkul doomu Sénégal ku tukki ngir loo jox sa njaboot. yal na la yàlla kattanal bëgg a dellusiwaat ci réew mi ci barke Seydina Mouhamed. amiin ndax ndax dem nañ mais xel yaa ngi fii. Hmm. encore une fois di gërëm sama fans yëpp. waaw di leen ziyaare di len hmm. ñaanal di leen wax ni Ramadan bu barak lépp luñ jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla nangul bépp ñaaw te ko yàlla jaxasal ba set ci barke. Serigne Saliou waaw mm. di ñaanaat baax yàlla na yàlla dindi lii di coronavirus covid 19 bi yàlla na fi jeex nañu kenn dematul kenn du mm. donoon nañu to yàlla nag moo ko fi wàccee mm. yàlla na ko fi yàlla nu mu gën a gaawee comme ci fukki fan yërmande yi lañ nekk yàlla nañu yàlla yërëm teggal ñu dix sonal nañu fàtt nañu amiin amiin amiin Armé gërëm suma grand Talla Diop grand da waaw suma fan <laughs> maa ngi koy may dara Talla dëgg bu mel ni Ahmed Zoumale Ahmed Fall waaw vraiment jàppale Armé te a tax suma gaa yooyu ku mel ni pharmacie maa nuyu di ko ziar day jàppale Armé te yàlla aussi ak ak sama gara Ibra waaw sama gara yooyu xam nga dañuy jàppale waaw armée billaahi jiri mel ni sama gara Mamadou Dieng mu ngi ba États-Unis day sonn ci mm. armée xale te yàlla tax sama mm. grand frère yi Pape Faye xam nga di suma waa famille xam nga mm. waa maa ngi leen di nuyu bu baax waa mbay la nduur xam nga maa ngi leen di nuyu Bawol sama papa sama Serigne Serigne Cheikh Kounda Ndiaye yàlla na yàlla yàggal ci kaw suuf di nuyu sama sama xarit suma Serigne. sëñ hmm. Abdoulaye Diop borom xaas. ndeysaan borom xaas. état nu hmm. benn yoon. Hmm. damay jàppale saa yëpp di ma jàppale baatin. ndeysaan. yàlla na jàmmam yàgg. yàlla lu yàgg lool lu ànd ak wér. amiin ñu ngi ko. day day armée di nuyu suñu jëwriñ ab seen di di bëgg armée armée yi du ma président bi rek laa Baye Mor Kassé na jël ñu yóbbu jox ko ñëpp ji di contact encore une fois vraiment hmm. def nga innovation hmm. di ñeneen def ko incha allahu rabbi yow yàlla na sa bi amin ñu bokk jàmm ci yow jaajëf jaajëf jaajëfati jërëjëf merci beaucoup mbokk yi seetaan Wassare Lamb leen di jaajëfal bu baax a baax a baax seen xarit ngeen ma nekk ci Parcelles Assainies ànd ceeg armée bu benn baraak fëgala mu États-Unis ñu ñu doon def rek ndax ginnaaw dañuy respecté norme ndax feebar bii di coronavirus ku ci nekk rek waay toll war nañ faa mën a def li nga xamante ni mooy def li nga xamante ni mooy ñuy jaajëfal képp koo xamante ni képp koo xamante sëñ Bas borom dëgg kaar mi nga xam ñëpp xamal na ne euh, di bëgge bu baax a baax Adama euh, soxna Fatima ñoom ñëpp ma leen di jaajëfal bu baax a baax beneen kilifa gu mag gi parce que ñaari kilifa gu mag gi nekk Maris ak kilifa gu mag gi nekk ci kaw ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a bu baax baax baax incha allah ci beneen xewu làmb ñun la ak jërëjëf Wassare lam